خليلي يا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa alamtanaa innaka antal alimul hakim gannaaw ba nu sant yàlla julliwaat ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñi nga xamante ne si yéen julli di mbokki taalibe ñu ngi fii ci fi nga xamante ne fi la ñuy suñu burdu populaire di def li nga xamante ne si moom mooy wàccaayu gàmm ñan ñoo ko woote waa daayira ansaarul bu cheikh seydi haj malik radiallahu taala anhu bu marché central ñu ngi fii ci li nga xamante ne si moom mooy def nañ li nga xamante ne si daanaka moom farata ji parce que bi ñu jàng nañu alquranul karim wàcce kaamil fa tabarakallahu imam yi nga xamante ne si ñu ngi ci marché bi yëpp ñëw teewe ko fa tabarakallahu ci njiital imam Demba Jaxate fa tabarakallahu mu jiite kaamil bi ñu wàcce kaamil bi bi ñu pare joxe nañu xéewal yi nga xamante ne si moom mooy laax yi bi ñu paree nag automatiquement dañoo jublu ci li nga xamante ne si moom mooy añ yi yaakaar naa ni añ ba pare doo ko julli ji juma mooy li nga xamante ne si moom la ñu def farata ba pare muy innovation boo xamante ne si innovation bu doy waar la ndax ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk restauration jamono ji ñuy wax ak yéen togg nañu añ yi ba añ ba pare ba séddale añ yi te julli goo juma julli julli jéeguñu juma loolu nag yaakaar naa ne passif la boo xamante ne si mbokki jullit yëpp a jàpp waa marché yëpp dañoo génn tiijaan xaadir yi murit yi laayeen yi ñëpp dañoo génn en masse naa ne boo gisee jotaay bi nii mu demee doo xamee kii tijaan la doo xamee kii murit la doo xamee kii laayeen la kenn rek la ñuy gis muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kat yàlla subhaanahu moo ñu njëkk a joxoon ñu yonent bi daal ni ñu kenn laa leen toppaloo moom laa leen royloo muy sayduna muhammad laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon ñi nga xamante ni si ñëpp ay sëriñ leen cheikh na cheikh saad bu sëriñ touba maam cheikh seydil haaji malik kenn ku ci nekk mindaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moom nga bëgg doon ci li nga xamante ni si moom mooy diine marqué ci benn empreinte bu ama am solo ndax lan la woote gàmmo lan la woote màggal juddug sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee nuun ya yaa ngi dégg Cheikh Seydi Hadj maa ngi ni yonent bi at ma mu juddoo mbég la weer wa mbég la ba mbég la ngénte la mbég la bés bi mbég la ñu ni maam Maodo bindal mu ni waamun summa sahrun summa yawmu ata fii xudaa xanun ko yoonu bàyyi Serigne Babacar Bakari daraman aram la Kumba ki nga xamante ne si moo nga tëdd fee ca sa tem gaa di Cheikh Seydi Hadj dëkk bu leer boobu borom dëkku taar boobu borom dëkku diina boobu la ko naar ba waxoon ni ko xali la yaaw jaaw wan si laa bi tiwaawan tiwaawan tayaamini nee na ko yow Cheikh Seydi Hadj Malick sa dëkk bii di Tiwaawan nee na picc yi nga xamante ne si am na lu leer sax mu nuy naaw fan la ñuy jëm Tiwaawan la ñuy jëm lii ñu am yaa na nekk suñu muur ci barki Seydina Mohamed kon ñu àndandoo ñu ñëpp fa tabarkalaaw dugg ci biir gars yi ma présenté la ñi nga xamante ne si ñoom ñooy organisateurs yi ñu wax nag lan mooy sababu bi kon bu ngeen ma toppee incha allah rabbi yéen ñi nga xamante ne si yéen ñëpp yéen a ngi ñu àndandoo ñun ñëpp dem ci biir organisateur incha allah rabbi ñu ngi nuyoo di ziar di nuyu ñëpp di len nuyu yow Serigne Cheikh di nuyu wa daayira bi yep ma sha allah di len jaajëfal di content ci yéen bu baakha a baax di nuyu sunu khalifa sunu khalifa tay nga xay ne moo fi toogal Seydil Hadji mi Serigne babakar si mohammedul Mansour diko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi ba mission bi mu naal ci kër maamam Seydil Hadji malik mu mottali ko si jaam ak salaam macha allah ñu ngi nuyu ñep di ziar ma sha allah di rafetlu li fi jotta xew parce que li moom wax deug yàlla ñun yag nañ ci marché bi yàgguñu fi mais ñu ngi koy dooré gis Pastef bi ak pas-pas bii nii yàlla xam ne ñu ngi ko jël macha allah kon nañuy gën a encouragé yi rek di rafetlu lépp nag waaw di rafetlu lépp macha allah lépp rafet na di ñaan yàlla suñu borom yàgg yàgg ñu ko teewel ñu yàgg koo fekke yag koo teewee di ci ànd ak yéen macha allah ci barke yonent bi macha allah di rafetlu kàddu yëpp vraiment parce que kontaan nan daal xam nga instant xol moo fees. xam nga xol yi moo fees quoi instant daanaka wax sax mënuñu ko macha allah wax dëgg yàlla daal kontaan nañ ñu ngi rafet rafetlu bis bi vraiment kontaan nañ suñu xol sedd na guy di gën a ñaaxaan ñëpp nag waaw di ko tàmbalee sama bopp di ñaax képp koo xamante ne yaa ngi ci marché bi di taalibe Cheikhou Tidiane aju ci kër xaaj El Hadji Malick wala faneen foo mën di aju ñu ngi lay tàllal loxo di la wax nga ñëw bokk ñun lii parce que ñun lenn dong moo ñu tax a jóg mooy dëgëral suñu xadara dëgëral suñu xadara waaye jëmal suñu pas-pas fii ci marché central loolu donc moo ñu tax a jóg ñun Maodo rek moo ñu ñor ak waa këram. jërëjëf fa tabarkalaahu ñu ngi fii ci waañ ba tey mais ñu toog kenn koo xamante ne si kenn la ci jàmbaari Serigne Fallou yi kenn la ci jàmbaari Serigne Touba yi muy soxna Ndeye Beye boo ko xoolee mbaa nga gis ko muy dox rek ci luy doxal yoonu Cheikhou Bamba bi jëm ca kanam rek ci lay dox fa tabarkalaahu waaye itam ñu gis ko mu am taxawaay bu ama am solo ci mbokku taalibe cheikh yi nga xamante ne si ñoom ñoo organiser lii ndey bee sax boo ko xamul lu bari boo ko déggee muy wax danga yaakaar ni ab tijaan la waaye kenn la ci waa kër sëñ Fallou yi ndey bee tey jii ñu organiser lii muy journée boo xamante ni si tijaan yëpp ànd ak xaadir yeeg murid yeeg laayeen yi organiser bésu màggal juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndebe ñu tollu ci wàccaay yi to joxe añ yi joxe li nga xamante ne si moom mooy bernde yi ñu defar yëpp bu ñu tolloo fii lan ngay yëg ci bés bi tey. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di am kontaante tey jii sama xol dafa sedd macha allah wax dëgg yàlla dama am yéeg yéeg bu sedd sedd xol ndax lii dafa neex ndax ñun ñëpp benn lañ suñuy waajal gàmmu. def wàccaayu gàmm gu am solo gi nar a taxawee xadara bi ci kanam incha allah kon man dama ci kontaan maa ngi rafetlu lii di ñaan yàlla mu yokk ba déwénee ñu def lu gën a ëpp lii ci barke Serigne Babacar barke Seydina Muhammad ndax wa dëgg yàlla ay jàmbaar ngeen xàmmee woo tey murit bi xàmmee woo tiijaan bi xàmmee woo laayeen bi wax dëgg yàlla macha allah lépp neex na lépp bari na. ñam yi macha allah séddale nañ lépp dañuy ñaan yàlla lii jëm ca kanam bu déwénee ñu def lu gën a kawe lii ci barke Serigne Fallou barke Maam Maodo wasalaam. waa ndey bi damay delluwaat tuuti rek ci li nga xamante ne si lu rafet geste bi ngeen def démb ndaxte geste bi ngeen def dafa nekk geste noble mooy kan yéen ngeen di waa kër fallu Fallou ñuy waa kër Serigne Babacar Sy démb ngeen ñëw indi ay teraanga yu yu rëy ni rëy nii yéen yéen a ko jàppee ci bés bi te bu leen neexoon ngeen di tijaan yee xewle bu leen neexoon ngeen di tijaan yee xewle croiser la bras mais démb seen teraanga yi ngeen indi daanaka defar na bés bi loolu relation boobu nga xamante ne si am ngeen ko te nekku leen ñoo xamante ne si yéen a bokk tariixa ci marché bi ngeen di daje relation boobu nan la demee. waa loolu sant yàlla rek ndax dañ ay jeunes doon ay xale nekk ci marché bi te yéen loolu yéen ñu ko lebal barki démb ñun barki démb lañ safar ngeen jël seen alal ak seen doole surtout ma Ousseynou Baye Laay ñoom ñëpp dañoo sonn jël seen alal jël seen doole nekk ak ñun ba mu jeex tàkk liggéey bi ñun dañ leen a fay seen bor rek te lii dañuy ñaan yàlla ñun di ko def ba suñuy sët di ko def ndax lii dafa neex ndax lii jàmm rek moo ko lal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tariixa bi li Baye Laay wax garab la rek Seydina Muhammad mooy garab gi alayhi wa mooy garab gi ñun sëriñ yi ci des ay ay ay bànqaas lañ rek kenn ku ci nekk rek yaay xool ca bànqaas ba nga fa te teeru ñoo bokk lépp lépp ñoo ko bokk kon nag lii wax dëgg yàlla man dama ci am yëg-yëg barki sëñ Fallou wallaahi li ne sama xol bi tey wallaahi mu ngi mel ni maa ngi nekk sa jumaa yi Touba ja di ziyaar mu ngi mel ni maa ngi nekk ca raw du maam Alaaji ba di ziyaar barki Alaaji fàllu li ne sama xol bi wallaahi lépp luñ ci am ci lu baax yàlla nañ ko bokk lépp luñ ci am ci lu baax rek yàlla nañ ko bokk di ñaan mu yokk rek wasalaam jërëjëf yéen ñi nga xamante ne si yéen safoo di déglu li nga xam di seetaan li nga xamante ne si moom mooy Prestige TV fa tabarkalaaw di télé askan wi nga xamante ne si ñoom ñi nga xamante ne si ñu ngi Cees yëpp moom la ñuy safoo fa tabarkalaaw di ko seetaan euh, li nga xamante ne si moom lañ leen doon jëlal ci li nga xamante ne si moom mooy xadaratul juma bi nga xamante ne si waa daayira ansaarul malikiya bu cheikh Seydil Haaji Malick ñoom ñoo ko organisé fii ci marché central fa tabarkalaaw kon dañ leen di dox jox dig daje incha allahu rabi ci kanam tuuti ñu àndandoo dem ca tante ba tante ba yaakaar naa ne ay surprise yu doy waar ñu mu ngi ñu fay xaar kon incha allah rabbi képp koo xamante ne si bëgg ngaa xam li xaw ci xadara bi incha allah rabbi teel sa commande te teel ma ko foofu bul zappé toogal Prestige TV di ñu seetaan incha allah rabbi ci kanam tuuti ñu do dem ca tànt ba dégtal leen li nga xamante ne si moom mooy xadaratul juma bu fay am ak wasifa bi nga xamante ne si moo fay am ak burdu ba suñu paree nag doo ko def li nga xamante ne si moom mooy animation suñu paree déglu ki nga xamante ne si moom mooy Sidi Ahmed Sarr fa tabarkalaahu mu mu ñëw nag euh, defaraat suñu ruux yi chargé waat suñu batterie débranché woon ci kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaari àdduna ak alaxira la ko Cheikh Sidi Hadj Malick waxoon rek ni ko bëgg yonent bi rek moom moo wër wa laysa li amalin alxaaka yaa amali si wal mahabbati wa taazimi wa salami maam Abdou daan ni yonent bi daal dañ ko war a bëgg ñun bëgg gu wóor ñu ne ko maam maam Abdou lan moo tax mu ni xubu taaha lil muzibina najatun wa amanun min hawli yawma liqaay nee na ñun daal buñ bëggee am sécurité buñ bëggee am kóolute nanu bëgg yonent bi rek ndax inna xubba nabi xaalata lahmi wa idaami wa damma duna riyaay kon yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Seydi Hadj Malick ci kanam tuuti ñu àndandoo dem ca tànt ba incha allahu rabbi wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin الله الله ونور الأقوال المتكلمة آدم الإنسان بالحق رباه البرد الأزال المدن أربع المالات لكل مطار من القول ونور الكلام الذي مالت به كونك الحائط لم يكن المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى الله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

على الشفيع وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أبيك خير وسلم يا إلهي مجزيا أبدا عنا محمدنا مختار ودونه ودونه من الحلم عظم شيب فيه نذير وكيزانه مثل الكاتب عدة سقط عابر الرحمن يصلي نبي صلاة الجوع mu sopp yonent bi defal li ñu màggal borom barrière or ba ca Madina loxo ca kaw يعلم أن الدار سوف تدور سيدي أحمد صار سمع موضوع مخم يمن مصطفى سيد الحاج مالنا يعلم أن الدار سوف تدور سمع نير مصطفى صبير صبير وأسمر له فانجرى حر وقال محول دعا ثانيا لما اشتكوا فرقائها فكان الإباح للصبير عجول وبالرجل تسكن الحراء بأمره ورد له شمس الغروب الجليل ألا إنما يمنع سيف ورحمة وجازلول رسول ربنا سمام نينا مصطفى كريم ما عسى قد في السبا لقد كان يحيى عما داو يقول أبعدت له شاب اليهود بسفيان بيان فزيع رهيب tàllal loxo gàntuwuñu si benn côté muy fépp di sant nag waa marché bi bu wér a wér a wér a wér ku dégg sa tur ak ku déggul sa tur ndax kenn ku ne fa nga toog yaa ngi jëf lu tax liy jëm si kanam mag moo sol sa daal dem waxtaan seeg moom kàddu gi lay wax genn la góorgóorlu leen te xam fi ngeen jëm njabootu Seydina du nekk si ay caaxaan du nekk si ak fo te si kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ngeen ñu doolee ñaan danañ gën a góorgóorlu gën a tegaat suñ tànk si yoonu siraatal mustaqiim xay na na xol bee sedd moo tax kàddu yi ni ma ko bëggee woon du ko nekkee carrément. ñoo ngi gërëm ñëpp suñ tool daal xol bi moo sedd ba tax na kàddu yi niñ ko bëggee woon du ko mën a amee ñi ñu yore wàllu sécurité bi nag macha allah tey ku gis lii xam ne sécurité bi def nañ seen wàll fi daal. leneen lo ci teg rek da ngay yàq ndax xol bi dafa seddu guyu gërëm nañ mbolo mi yépp kenn ku nekk sa tour ak sa san wa wasalaam alhamdulilahi rabbil alamin الحمد لله الذي أنعم علينا izhari سيد البشر قدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأشهر وليل ولادته صلى الله عليه وسلم صاحت أنواره النجم والخمر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد بني مدر وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر ورضي الله تعالى عن خطب الوجود الذي أدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين موي رئيس أهل الهدى ويا والبر فرقهم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 طلعة الحق بالحق سيد الوجود وعالم الشهود الذي حقق الحق فحقق الحق والحق كله لينو لينو نك سما بوك القران مو جانل لي واذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم نيو سان بوتيت بي دي سيدي احمد سي nguur bi ñu teg ko ci loxoom mu joxal ñu ko sang mu tedd bi xalifatul am li tarifati tijaani si ñu bëgg si maasu nuyoom mooy nuyoo sëñ Xaaji Malick si Abdoul Aziz mooy nuyoo njabootu maam Habib njabootu maam sëñ Mouhamadou si Jamil njabootu sëriñ Cheikh njabootu sëñ Mouhamadou Mansour njabootu sëñ Abdoul Aziz njabootu waaye njabootu kër sëñ Xaaji Malick yëpp wolof nag dafa ne wow ci koŋ la yem tooy ci xepp la yem nuyu sang bi di alxaaji nga xam ni soo ko xoolee sa xel dem ci sama góor ga dañaan góoram nga waaye nag sëñ Mansour sama góor la bëgg alaaji Maalik tax na bu daan tëgg Seydi Haaji Maalik danaan Seydi Haaji Maalik allazi laa yujaara wala yutaaha wala yubaaha lahu yadul tuula wal xaatul quswa wal malja wal mawaab cheikhul mashaayikh fil islam wa diin in qaama qaama bi wa in qaada qaala ma allah wa in taharraka taharraka lillah jamiu umrihi ila allah wa billah wa fillah wa ila allah Okay, Mark. kon daar lu yor su daan sama maam ne moo tax ma ne ko fa bil jiddi nit ku jàttam laa bi jaddikum fa jaddikum laa jiddi lu addi du juddu am kuy kaas ma ne ko nag fa xul nii bi fiikum xaala jaddi lu tubri du bi almi nayir kër doon jéema di ko wax mu mel na yàlla tasul yaakaar ci bi ñu toog si xel tas yaakaar mooy lan sa xel dem ci kenn nga yaakaar mu dimbali la fax moom dóoyu waa dañu ngénte ñaari fan desi mu seeti mbokk yi kum dem nga ne ko gabaal mu kat jamono daf maa jàpp xol ba tàng mu ñibbi na naan koo fi jublu mu tas sa yaakaar waaye ko kenn fi ko jëmal dajeeg alaal jëli bi jël ko yóbbu sëriñ Cheikh Tidiane Sall ñu ko nekk li nee na mu dugg ci bi di waxtu rek maa ngi xaar ba kenn tudd jëm nee na ñu wàcc alaal jëli tax ko benn enveloppe te jamono yooyu mu xool muy six cent mu ne ko sëñ bi noo tudd mu waaye di ndokkeel léegi suñu rakk bi tedd ji bi alxaaji Babacar Jéy ma neewoon naa ko nag defoon naa ko sant Jéy du amee xam-xam ni tabaraka yàlla yàlla fa tedd li nga fi wax bu ñu ñaanoo rek ñu dundal waaye nag Seydi Hadji Malick ñu fi daje da wax lu am solo ñaar mu yonent ak Seydi Hadji moo doon dafa jël li ci moom roof ko ci Seydina Muhammad jeex ci yonent bi bàyyi dinaa leen wax ñaar tey ngeen takk ko Seydina Muhammad ñaari tur lañ koy wooyee Muhammad ak Ahmad bii xaqiqa la bële xaqiqa la Alaaji Malick ni ñu xaqiqa bii ci kaw suuf la bii ci kaw asamaan xaqiqatul kawni aynu zaati talaatu ifaadatullahi nuurullahi juróomi maqaama la xaqiqatul kawni maqaama la aynu zaati maqaama la talaatuhu maqaama la ifaadatullahi maqaama la nuurullahi maqaama la mooy juróomi araf yi turu Seydina Muhammad moo doon nag bëgg Seydina Muhammad jege ko ba ba mu juggi seeti Seydina Muhammad xam nga Muhammad boo ko aadalee xam nga ñaata la 92 ci chiffre xam nga Malick ñaata la 91 91 bu ñu tegu 92 buy njëkk rek dugg Seydina Muhammad nga ne ma danga koo tànd nag ma la nañ dem ci Ahmed Ahmed ñaata la 53 Maodo ñaata la 53 plus ñetti araf muy 50 52 ak ñetti araf muy 53 li ma xam di Ahmed bii def ci xaq départ ci bopp Fatiha ba ci surtout nañ muy xaq Ahmed yee bee départ ci bopp Fatiha ba ci surtout lay li subhaanallah asra bi laylan muy sóoratu di quatre vingt di Muhammad kooku nag mooy Maodo ni man fu ma teggee sama tànk rek ci Seydina Muhammad laa koy rek yaayam di faa waat boo ko déchiffré quatre-vingt-onze la Malick quatre vingt la Dakar gi mu tëdd tëdd ba Thiès Thiaw gi mu tëdd ba Dakar quatre-vingt-onze kilomètres loolu la Seydi Hadji Malick yàlla taxaw ñu ñëw fii nag ci Thiès den rek sangawu tedd bii faf ngeen nekk benn. xam ni lii. xam ni nag lii. xéewalu yàlla la bu yàlla la bu fi wàcce. xëy na marché bee leen boole. ne xëy na nag marché bi moo leen boole. waaye lii juddu na ci. waaye lii juddu na ci. te seen cër la. te seen cër la. jàpp leen ci bu baax. jàpp leen ci nag bu baax. lu ci waay mën. lu ci waay mën. na def. na def lu ci waay mënul lu ci waay mënul na def na def xam ni yàlla la koy defal xam ni yàlla la koy defal te ngeen nekk benn te ngeen nekk benn nag leen dugal mukk ci seen biir bu leen dugal mukk ci seen biir. te kenn ñaanu leen ko yàlla. te kenn ñaanalu leen ko yàlla. diggante tariixa yi. diggante tariixa yi. loolu. loolu. dafay delloo mbir gannaaw. dafay delloo mbir gannaaw. foo fekk nag. foo fekk nag. kuy parparloo. kuy parparloo. ci tariixa. ci tariixa. ngelaw li moo ko ci dugal. ngelaw li rek moo ko ci dugal. waaye bokku ci. waaye bokk ci de. ku ci ngelaw li dugalul. ku ci ngelaw li dugalul. doo ci doo ko fekk mukk. doo ko mu taxaw di parparloo. ñëpp benn lañ. ñëpp benn lañ. muy tiijaan muy murit muy murit muy xaadar muy xaadar muy laayeen muy laayeen muy ñaseen muy ñaseen képp ku mu mën a doon képp ku mu mën a doon nga doon jullit nga doon jullit donte ne sax bokkuloo ci tiijaan donte li sax bokkuloo ci tiijaan ci daa daaira bi nga bokk ci daaira bi nga bokk noonu la melit noonu la mel ci yeneen daayira yi ci yeneen daayira yi nga xam ne ñi ngi fi kon yàlla na yàlla defal leen ci kon sëriñ bi ne yàlla na yàlla defal leen ci jàmm yàlla defal leen ci jàmm yàlla na yàlla defal leen ci jàmm jotaay bi jotaay bi yàlla may ñuy fekkewaat ko yàlla may ñu fekkewaat ko ay déwén yu bari wax leen amin te yàlla barkeel seen liggéey te yàlla barkeel nag seen liggéey defal leen ci ubbeeku defal leen ci ubbeeku yàlla na yàlla defal leen ci ubbeeku yàlla na yàlla defal leen ci dee wax amin la ma leen waxoon ca koor ga ne li ma leen waxoon ci koor gi rek jaaykat ku ko koy ñaanal. jaaykat ku koy ñaanal. ko ñaanal. na nga ko ñaanal. saa yu xëyee. saa yu xëyee. dégg. am jaay am jaay ma. saa yu xëyee daal saa yu xëyee daal. ma dégg am jaay ma rek yàlla ma dégg am jaay ma rek. ndax loolu fekk mi ngi koy dégg. ndax loolu fekk mi ngi koy dégg. mbir yaa ngi dox. mbir yaa ngi dox. kon yàlla na yàlla defal leen taw. kon nag yàlla na yàlla defal leen tawfiix. ci barke yonent bi. ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. ñu yemale foofu kaddu yi. kon nag sëriñ bi ne ñu daal di yemale foofu kaddu yi. ndax yite yi bari na. ndax yite yi bari na. suba am na yeneen mbir yu ñu. suba am na yeneen mbir yu ñu war a taxawee motax munuñ ko guddal lool motax munuñ ko guddal lool yalla nañu yalla fayal mam Maodo yalla nañu yalla fayal mam sayyidul Hadj Malick wala amin yalla fayal mam Maodo yalla nañu yalla fayal mam sayyidul Hadj Malick te ñu ci barkem te ñu ci barkem nag ñi ngi jéggelu né kon ñi ngi jéggelu ñu def ñaan ñu bok ñun ñepp talal loxey nak jigen ñi defaran muray yi toga yi serigne bi mi ngi bëgg def ñaan amna nak ñu fi invité Eh, am nga nag ñu ni fi invité. ñoo xam ni ñoom it dimanche dañuy def seen burdu. ñoo xam ni tamit dimanche dañuy def seen burdu. muy waa cité cité Senghor. muy waa cité Senghor. ñoom it ñëw nañ fi def. ñoom it sëriñ bi ne ñëw nañ fi def délégation bu am solo. comme ñoom it ni ñu ñëwee. comme ñoom it ni ñu ñëwee. yéen it na ngeen def délégation. yéen it na ngeen def seen verre blanc yi def délégation bu rëy. fekk si leen ñëw fekk si leen fii. suba tamit suba tamit incha allah. nee suba tamit incha allah. dinañ ñëw fii burdu ñëw ci Madina Fall. dinañ ñëw fii burdu ci Madina Fall. Haji Baye Ndiaye mii toog. Haji Baye Ndiaye mu bëri njëriñ mii toog. moo koy jiite. moo koy jiite. di sant tamit média bi. di sant it média bi. di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay. di leen gërëm bu baax. seen taxawaay. muy Hadara TV. muy Hadara TV. di seen 24. di seen 24. TV. TV di prestige. prestige di prestige tv tv ñoomi leen di sant bu bi de France suba suba Insha allah. waaw suba it place de France suba. burdu populaire. ñoomi dinañ burdu populaire. place de France. ci place de France. ñëpp leen ciy woo. ñëpp kon ñu def ñaan. kon nag ñun ñëpp ñu bokk tàllal loxo yi sëñ bi mi ngi bëgg a joxe ñaan. ñu def fatiha. ñu bokk jàng fatiha. jàng ayatul kursi. jàng ayatul ñu dogal ko ci. te ñu doyloo nag benn ñaan bi. bismillah. fatiha ayatul kursi. qul huwallahu ahad. te jekk salatul fatiha. sëñ bi ñaanee nag ñu dimbali ko rek may ko mu jug ndànk. dugg ci oto bi ndax yeneen yitte ñu ngi koy xaar moo maam Cheikh Alhaji Abdou Aziz mi ak Serigne Ahmed Sarr bu ñu jugee rek ñu may leen ñu jàng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 تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بالتواون